parce que tout le temps day nan day par rapport ak li nga tam ñu koy tek en permanence alors nous avons ni euh, li nga que que Miram ak que euh, décision bi justement nous avons ni euh, si yoon que décision ba mi en cours exactement alors suñu que touti tout dit si après li nga xamné que mandat de dépôt bi la suite que là jëm dit ki que Ousmane Sonko. moy ni ma wax série yëpp série d' événement la mais man hmm. série d' boobu noonu yëpp ni ma ko jàppee si pour liquider un adversaire politique hmm. naam bu fekkente ne nag parce que quoi parfois objectif parce que Sonko ci ay affaire yu bëri def na ay erreur mais gars yi pour man dañoo profité ci ay erreur Sonko pour jiima parce que sànq maa ngi la koy wax ci bi ñu nekkee en coulisse maa ngi lay wax naan la parfois sax di nga gis benn décision boo xamante ne état bi jël na ko day nekk yoon yoon lay nekk maanaam état day profité ci erreur yi nga xamante ne Sonko def na ko mu yoon xam nga jaay doole lay doon mais day doon jaay doole boo xamante ne pour man sax ci yoon lañ ko teg parce que dama lay wax ci damay jël affaire diffamation bu Mamba Mbaye Niang bi rek man pour man Sonko foofu dafa def benn erreur politique bu mag ndax une personne comme Sonko c'est une voix utilisée mm. avant tout c'est le maire euh, de Ziguinchor kooku tey jii bis bu demee bay génne yenn wax yi il faut mu am des preuves qui sont concrètes mënoo ñëw nga accuser nit ki ba pare ñu lay wax loolu la wax la charge de la preuve incombe au demandeur su ma article 9 du code des obligations civiles et commerciales la maanaam tey jii man mënuma la tuumaal ñu dem ba police ma lay wax naa la yaay génne preuve te Sonko bi muy wax loolu noonu mi ngi ne man ma ngi am ay preuve yu leer nañ ñu dem ba ci biir mu ne ci euh, ne internet bi la fi gisee xam naa si rapport IGE la doon focalisé wu donc yooyu ay erreur la yoo xamante ni Sonko da koy def mais état bi aussi da ci doon profité mais lépp lépp lépp lépp ni ma ko mën a tënkee rek moy ay série d'événements la yoo xamante c'est pour liquider un adversaire politique parce que amna na xamanteni ñu ngi fi nek ci pouvoir bi di def yo xamanteni mo gëna grave yoy non té pourtant dara fekku ci dara fekk parce que ñu ngi wax ni Sonko day appeler à l'insurrection day appel à la violence mais ci biir gouvernement bi Sonko il n'est pas un ministre mais man gis na ci biir gouvernement bi le ministre de la jeunesse bu taxaw mu né Ousmane Sonko bu ñu ko convoquer à 9h bu ñewul man dina mobiliser 100000 jeunes ñu fekk ke kërëm dal di koy tak, dal di yóbbu mais lan mo gëna violent discours bobu non et c'est une voie autorisée parce que c'est un ministre c'est le ministre de la jeunesse qui a parlé donc pour ni dañuy jël décision ne certains actes dañ ko de tout bord ko Ousmane Sonko ba ñeneen man cest la justice que vous avez dañuy xol ni li arrangé ni ñu def ko wul problème

ceux qui font dem banane naan def na ay testament si papaam ak li nga xamné ko modi di euh, waajurum bu ak wajurum bu jigéen euh, bu si mujj euh, ni tenez-vous prêt benn agent de sécurité ñëw na fii di ma filmer ma jëlaat téléphone bi entre autres entre autres alors mu nekkoon ben vidéo bo xam tam projeté woon nañ ko yooyu yëpp jamono jooju ñi ngi nan Ousmane Sonko li kat mu wax nii peut-être 15 ko waxoon da nga koy daal di est-ce que euh, nekkul sax Ousmane Sonko il est intouchable euh, li na xam ni itam mu koy wax euh, ba sax ñoom jàpp ñoom Bassirou Diomaye fay attend dootu naan li jig Ousmane Sonko jigu leen par rapport à ces dires alors ñu daal dajale loolu lépp ñu indi ko tey jii li nga xam ne moo di au devant de la seen de compilation des actes nan na ko daal di gisee est-ce que ñoom dafa nekk loo xam ne itam da koy yàggoon nas ba tey jii mu sotti ñu daal koy li nga xam ne moo di teg loxo. waaw ay kii la yoo xamante ni yàgg nañ ko parce que boo xoolee ci affaire Adji Sarr bi lañ jógee te Adji Sarr Adji Sarr man mooy li ma wax la woon. Hmm. parce que contumace lañ ko jugé woon. Hmm. donc tey jii procédure bi nul la parce que ñoom dañoo xam ni procédure bi day nul te instant yi actuellement benn affaire mooy am soit dañuy fon commencé waat jugement bi te bu ñu ko commencé waatoon fii ak yi du empêcher Ousmane Sonko nga xamante ni moom lañ condamné Ousmane hmm. Sonko boo xoolee kat code électoral bi article woon mais boobu ba tey code électoral bi da koy permettre bu mu bokk ci élection yi donc bii pour man moo nekk bi nga xamante ni moom war a mën a empêcher parce que Sonko fi mu toll nii boo xoolee chef d'inculpation yi nga xamante ni teg nañ ko ci kawam yëpp fii ak élection yi même liberté provisoire bu ko demandé man gëm naa ni gars yi procureur duñ ko ko may donc pour man bii moom mooy le moment opportun pour xañ ka mu génn mu bañ a bokk ci élection yi mais tamit dama koy rappel toujours dama naan Sonko tout n'est pas parfait aussi c'est lui hmm. parce que man damay condamné parfois certaines déclarations yoo xamante ne bu génnee dina ko def parce que man d'accord ma aussi ñuy génne di jeter du discrédit sur nos institutions xam parfois nga jug nga wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy armée bi wax ñi nga xamante ni moom mooy police bi parfois nga wax ci justice beeg yooyu noonu xam nga pour man un citoyen simple peut-être mën na ko mais une personne comme Sonko bi nga xamante suba président de la république war incarner li nga xamante ni institution parce que boo nekkee le président de la république tu es le gardien de la constitution mais aussi institution yëpp sa le la tegu nga donc tey jii yow bis boo commencé nga décrédibiliser institution si tu es bis président de la république tamit dina métti ci yow pour nga gouverner parce que décrédibiliser mais jàpp ni il a suivi Nous, euh, ña tout le temps lay waxal c'est-à-dire ña nekk sa institution humaine institution ici, effectivement. parce que ñu nekk sa effectivement mais mais mais tout compte fait tout compte fait man dama jàpp ne loolu du un moyen pour ñu bëgg xañ kii li nga participation. aux élections de 2024 alors euh, c'est élection li linda de li ñu est-ce que Sonko est en prison mun na pas si yooyu non mais Sonko est pour le moment mënul bok ci élection d'ailleurs yow xam nga. lu tax mënul actuellement dañ ko condamné ñu ko def mandat de dépôt ñu ngi ci procédure bi ñu ngi ci procédure bi mën nañ xëy xëy xëy xëy instant yii ni ñu ne euh, ñu ñu ñu accélérer jugement bi ne tëj nañ ko temps en prison est-ce que ci diggante boobu noonu Sonko dina remplir les conditions yi nga xamante ni dina ko permettre mu nekk candidat. Euh, Kaaw Khalifa Sall euh, est en prison. candidature am jàlloon na mais à défaut du parrainage moo tax ñu daal di koy retenir mm-hmm. donc si si war na mën a jàll.

ba tey jii mi ngi usé des voies de recours ba tay tey fii définitive ko donc Ousmane Sonko nu mën nek candidat. non ci dossier bobu non motax man le dossier Adji ak dossier Mamay Mbaye man dama japp ne ay dossier la yo xamanteni ne mënuñu empêcher Ousmane Sonko mu nek candidat. parce que dossier Mamay Mbaye hmm. daan biñ ko ci teg tey jii. Hmm. nekul daan bo xamanteni code électoral bi dina ko dina ko dina ko empêcher mu nek candidat ci hmm. élection yi. affaire Adji Sarr man dama japp ne décision bo xamanteni maintenant c'est nul parce que dès l'instant que appréhender nañu Ousmane Sonko décision boobu noonu baaxatul donc li des mooy lii nii mais xam nga gars yi tamit mën nañ accélérer procédure bi à tout moment bala élection yi daan ka daan boo xamante ni dina ko permettre mu bañ éligible ci élection présidentielle eh justement peut-être li ñu bariwul euh bëriwul ñu gis ni euh, siège bu Pastef barricade nañ ko PUR aussi barricade nañ ko aussi ak li nga xam ko modi di PRP vite fait la mooy sa xalaat euh, par rapport ak barricade yi nga xam tam de plus en plus ñu koy gis ak aussi kan moo war a li nga xam ko modi barricade ben espace privé. Oui, mais c'est le ministre de l'intérieur c'est le ministre de l'intérieur qui a ordonné l'ordre. parce que le ministre de l'intérieur a moo une prérogative pour hmm. maintenir l'ordre public au sein du territoire national Si jii bu buñ barricadé siège passe c'est parce que mon ordonné joxe ordre boobu mais man ba suis ci dissolution bi moi, wax pour la dissolution à noonu tey jii man nekkul pas boo parce que am na parti yi bu ñu wax ci respect engagement yi ak obligation yi nga xamante ni hmm. parti politique yi dañ ci war a tenir yëpp man jàpp naa ni kon Sénégal parti politique dootu fi des mais tey jii li ñu gis yi nii yëpp ce sont des manœuvres politiques te man dama jàpp ne actuellement en 2024 bii nii pour man c'est le moment idéal pour ñu bàyyi ñëpp ñi nga xamante ni bëgg nañ dem ci élection yi ñu dem te Sénégalais yi daal di def seen choix ouvertement donc jàpp naa ni actuellement war nañ mën a bàyyi ñëpp parce que c' est pas au président de la république tamit moo ñu choisir kan mooy bokk ak kan moo dul bokk parce que boo xoolee lii lépp dañuy bëgg a wax ne naan non non il est violent dafa vulgaire donc warul bokk ci élection lég euh, élection présidentielle te pour man ce n' est pas le président de la république moom mooy tànnal peuple bi am nañ seen euh, légitimité wala seen liberté xool ku leen doy ñu fal ka donc pour man képp koo xamante ne tey jii remplir na les conditions jàpp ne ba fi ma toog ak yow Ousmane Sonko remplir na conditions pour être candidat aux élections présidentielles donc si ay Nous pour que alors merci beaucoup ça a été un plaisir justement pour la pertinence merci beaucoup si euh, sur pas mal de points alors merci beaucoup pour la pertinence vite fait le plaisir est partagé il hein. hmm. de émission aussi ci plateau plateau c'est un plaisir heure bu ngeen ma soxla bu ngeen ma wooyee inshallah dina dinaa ñëw fii li nga xamante ni xam nañ ko ci affaire yi ñu partagé ak population alors c'est clair ñu daal partager koy ak li nga xam ne moo askan bi chers téléspectateurs voilà c'est tout votre émission euh, Midi Info bu tay bi en version édition spéciale merci beaucoup l'ensemble des équipes en régie restez avec nous pour la bonne suite de nos programmes et que di leen ñaanal li nga xamné que modi di kenn la bon après-midi à tous et à tous donc édition spéciale li xamna naa daal di wéy ni ba tey si 5 TV Sénégal lépp nga xamni tam itam na fi ni leen ko daal di nga xamné que modi di eggee ak suñu ay ndaw yi nga xamni tam ñoo daal nekk un peu partout sur le terrain di leen daal di topal li nga xamné que modi actualité bi après justement li nga xamné que modi di de dëpp bi nga xamni tam ci sét seet ko ki nga que modi Ousmane Sonko par le juge ki nga xam que modi di par le doyen des juges Maham Diallo lépp na xam ne itam bëgg ko saari xamal ni wéy programme c 5 TV Sénégal à demain incha allah seen information de la mission de midi info bon après-midi à à tous.